mbooleem ñi fi teew ñëpp ñu ngi sàkku ñëpp ànd ak dal te bàyyi xel li ñuy def ndax ab liggéey féetewu ko kaw na ñëpp teewlu kon dañuy commencé rek ci liggéey bi jox soxna Faati Jaxate mu biral lim yi nga xam ne ni moo fi ñëwul te bàyyi ko ci waa daayira yi suñ paree ñu commencé nag waxtaan wi benn par benn <laughs> rahmatullahi taala wa barakaatu waa Xaddimatul Xidma góor ñi ak jigéen ñi soxna aji làmp mu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm bëgg a leeral nag liggéey bi ñu doon liggéeyal sëñ Touba daaw ba ren ci jumaa ji ànd ko ñun soxna yi toog ànd ko sëñ Seexuna Mbàkke suñu jëwriñ fa sene koo jébbal sunu bokki taalib yi suñu kilifa toog waxtaan ak ñoom xam ne lépp luñ joxe ci jumaa ji xeeb nan ko luñ fi wax xeeb nan ko xel lay fat waaye lu nu wax rek xeeb nan ko lu nu jëf xeeb nan ko ndax liggéey bi dafa rëy lool barke sëñ Tubaa soxna Fat Jaxate yow laay déglu soxnaa ji làmp ak waa këram ñaata lañ am. maa ngi leen di ziar di ziar kilifa yi toog yëpp kon dañuy def suñu compte waaw ndax man war waruma war a njëkk a wax waaye tax liggéey bee ko laaj ah ñun daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo njëkk ci jumaa ji am nañu 3 millions. 3 millions 162 mille 500 waa daayira soixante-deux mille cinq cent euh, la xadi 3 millions 62 mille 500 waaye daayira soxna Ami Silla am nañ 38 mille 300 380 mille daayira soxna Ami Silla daayira Baye Sall Ñang am nañ 332 mille 500 bu daayira Baye Sall Ñang am nañ lu ci toppaat sax daay xale yu ndaw yi am nañu 500000. ci njiital ci njiital soxna Astou soxna Astou léegi total bi yëpp am nañu 4 millions 526000 loolu la am te di ko xeeb nag tey sàkku ñaan ba bu déwee mu yokk ci barke Sëñ Tuubaa lépp 4 millions la 526000 waaw ak di ko xeeb. ma ci xaalis. Firdawsi waa so nit soxna May Dia am nañu deux cent cinquante quatre mille. juróom fukki junni ak juróom ñetti téeméer. waaw ci si juróom fukki junni ak juróom ñetti téeméer waa Firdawsi am nañ ko waaw. leeral bi leer na ba noppi comme ñu ko doon liggéey ñi ngi teew ñi ñu ko doon liggéeyal ñi ngi teew ñu jébbal leen ko wax leen ni mu toll leer na ba noppi li ñu ñaan mooy teewee ko nag ni déwén rek te li jébbal ren bu déwénee yàlla nañ am lu ko ëpp ci barke sëñ Touba mi ñuy liggéeyal. li ma waxoon léegi rek laay waxaat lépp lu ñu wax ci jumaa ji ci lu baax xeeb nan ko lu ñu fi joxe xeeb nan ko ndax liggéey bi dafa rëy sëñ Tuubaa xaare ñu ko ba tey mu teg ko ci suñuy loxo kon ñun lu ñu defut dañ koo mënut lu ñu waxut dañ koo xamut kon ñu ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp te ñaan suñu ànd bi yàgg di ñaanal soxna yi nga xam ne dañoo am jom nungu nañoo ñàkk nungu nañoo ñuqi dinañ teel a xëy dinañ naajee wàcc kenn du ñu sonn naa te loo ci laaj ñu joxe ko kon ñu leen di ñaanal seen liggéey bi ngeen di liggéey sëñ Tuubaa yal na ngeen ko gën a man yal na ngeen ko gën a man li ngeen di joxe te di ko indi yal na leen yomb yomb seen doom yi leen di jàppale di leen ko jox ndax xëyu nu gontu nu sëñ Bamba la ñuy liggéeyal su suñuy doom noonu jàppale duñu jox àddee ñu di ko indi ci jumaay sëñ Bamba kon kenn ku ne sa doom lam lay jox yal na ko gën a man di barke sëñ Saliou salaamaaleykum wa rahmatulaahi ñoo ngi nuyu suñu kilifa yépp di leen siyaare di nuyu taalibe yépp nag taalibe sëriñ Bàmba yépp ñu bokkal sëriñ Bàmba noo leen di nuyu te di leen siyaare te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp di am kontaante ak mbégte di ñaan suñu kilifa yi ñu jiite yàlla na fi yàgg wér te yàgg koo ànd ak ñoom ci dara sëriñ Bàmba may nu wér ak kàttan bu ñu liggéey la sëriñ Bàmba ñaan nag rek suñu jigéen ñi taalibe sëriñ Bàmba ñu takkuwaat rek nan takkuwaat te fettewaat suñu laxasaay ndax gis nga kat daayira yi ñu fi taseel daayira sëñ Faat Jaxate mii kat won nanu yoon kon nag nan takkuwaat dafa si yéenee gembuwaat bu baax a baax a baax a baax fa séene liggéey sëñ Bàmba rek fa liggéey sëñ Bàmba rek tey ñaan bi rek kàttan bu ñu ko liggéeyee kàttanu sëñ Bamba suñu kilifa yi nag yàlla nañ fi yàgg te suñu kilifa yi yàlla nañ fi yàgg te suñu njiit jiit jumaa ji kilifa yi ñoo ngi leen di sant leen ñaanal seen taxawaay bi yàlla na yàgg kontaan nañ bég nañ suñu xol sedd na guy noo ngi jéggulu sax nag noo ngi jéggulu baax a baax a baax a baax rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu suñ mbokki jullit yi fi teew ñëpp di nuyu suñ mbokk taalibe yi di nuyu suñ mbokki soxna yi ñu àndaloon liggéey bi di nuyu sang si fi toog mboolee Mbàkke ak Mbusoobe yéen ñëpp ñoo ngi leen nuyu di leen siyaare ci gàttal rek di gën a soññaat suñu bopp bu baax di leen wax de leen lii de doy nag njàngat ndax jamono fii mu toll tey jii ñu jébbale 3 millions nangam ñun daayiram ma bu mag bii kon nag nañ dolliwaat suñuy laxasaay te xam ne defagun dara waaye ma dir soññaat altine ji man loolu moo ma ñor altine ji yéen waaw ma daayira Muxaddamatul ma bu mag bii nañ dalliwaat suñuy laxasaay te xam ne Serigne Touba amul tànk ginnaaw yooyu kanam la am boo gisee dañ jébbali woon daaw ak ni jébbale ren ngeen xam ne Serigne Touba amul tànk ginnaaw kanam la am ak jamono ji ni mu naqaree waaye lépp Serigne Touba nun duñ ci dara de nan bàyyi suñ lépp ak sëñ bi rek nun daal duñ ci dara suñ lépp sëñ bi njaboot gi sëñ bi lépp sëñ bi kër ga sëñ ba nañ doolu suñu laxasaay foofu laa yem alhamdulilah rabbi alamin tey sant sëñ Seexuna Mbàkke suñ jëwriñ bu baax a baax baax di ñaan saa yàlla yàgg ko suñ kanam te te wéral ko di nuyu aji lamp jaay soxna ami silla di leen sant bu baax a baax ci taxawaay di ñaan fan bu gudd waa ndaka ñoo ngi nuyu ñëpp si àll ñëpp di jot di sant soxna Fat Jaxate suñu secrétaire ak soxna Xadi ñaan mi denc secrétaire mooy sol torosarial ñoo ngi sant ñëpp leen jaajoo jërë ngeen maa ngi sant ñun àndal ñëpp soxna Xadi Mbeng am na juróom fukki junni ak juróom ñaar ak juróomi téeméer soxna bu sa sekk am na téeméeri junni waaw ñun waa àllarba ji waaw lool lañ jépp loolu lañ si def suñu àddiya tey ñaan bu déwénee yàlla na yokk yàlla na dund ba am ay millions yi fi ñëpp di joxe yàlla nañ ko fi def ci barke sëñ Bàmb rahmatullaahi wa barakaatu waa daara Muxaddamatul Xidma soxna Xadi ñaa leen di nuyu baax te di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku jen nuyoo bi ma teg ko ci loxol sëñ Afe Buso ak um njobootum gépp waa Buso bi waa Mbàkke bi noo leen di nuyu te di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér lu nuyu baax soxna Aminta Silla aji Lam Fall aji retu Xadigéey mi ñu àndal liggéey bi soxna Faat Jaxate ak njaboot gi ñu àndal liggéey bi lépp te xam ne nu dey danoo tàmbale rek demagun fenn lii ab soññe la ci nun ndax buñ xoolee lan aman ak lii nu am ren ku ne xam ne ni lépp soññe la kon nan takkaat sunu laxasaay te góor góorgóorlu te xam ne du sunu njàmbaar du sunu xel du suñu bëgg sëñ bi la neex mu doon liggéeyloo ci jumaayam ji kon ku fi ñëw ku ne war ngaa xoolaat sa bopp bu baax xool na ngay doxe ak na ngay waxe te xam ne sëñ bi la indi indi woo fi sa bopp du nuy ñëpp di saar ñëpp di jégalu ñëpp di saar bu baax nag suñ ñaari jëwriñ ñu àndal liggéey bi sëñ naa Mbàkke ak Baay Sall ñag ñu mat jëwriñ ñu mën a ànd jigéen ñu ma ànd ak tuut tànk xam nga ne mag ku ànd ak moom te jéppi ko sa jikko la sëñ seexu naa yàlla na nga gudd fanta te ànd ak wér yaa mbooloo mi nga àndal liggéey bi yëpp suñ jëwriñ ji bàyyi saal ñang xale bu mën ànd ak mag mag ñu bari wax nu xamuñu lu ñuy def ñu di nu jaaj ci yoon wi kon ku ne xam ne ne suñuy dox ci ñoom lañu kon jaaraama yéen ñuy àndal liggéey bi jërë ngeen jëf nuyu naa ñëpp siyaare ñëpp di jéggalu ñëpp danañ ko teewaat. mbooloo maa ngi leen di nuyu seen ak seen sant di leen siyaar yàlla sunu borom fekke loonu déwén lu nu mar ren yàlla na man déwén lu ko maa ngi ñaanal sëñ Seexuna Mbàkke yàlla na fa yàgg te wér di ñaanal sunu jëwriñ sëriñ maam la Balla si xam ne sëriñ maam baal la moom lépp am sëriñ Touba la bu nu egsee fii tey moo nu fi indi wane noog ñu baax ñi sëñ Seexuna mi ak soxna yu baax yi nuy liggéeyal sëriñ Touba bu nu fi teewee déwén yal nañ fi teewee lu ëpp lii ànd ak wér ak man di sant soxna Xadi Gueye ak soxna Sylla bi ñëpp noo ngi leen sant noo ngi leen di gërëm noo ngi leen di ñaanal di leen siyaar yokk ba yëg ko rek barke Sëriñ Tuubaa damaa mënta wax ci mbooloo nag sant soxna May bu baax ndax gone gu baax la gu mën a ànd ak mag di ko gërëm di ko sant di ko siyaar mbooloo mi topp ci ginnaaw ñëpp noo ngi leen di sant leen gërëm yàlla dogal na liggéey nañ fi juróom fukki junni ak juróom ñetti téeméer jox na ko salaamaaleykum. micro bi nga jege bu yàq. bu weex la. auzu billaahi mina seytaani rajiim. asalaamaaleykum mbooloo mi man soxna naa maay nuyoo ci njiital eh, soxna Aminata Silla ah di jox ñëpp seen wàccuwaay di wax na liggéey bi rafet na luñ fi joxe ren daal bu ne yàlla nañ joxe lu ko ëpp ci barkeb Seex Saalihu Mbàkke di ngeen góorgóorlu nag takk laxasaay maa ngi gërëm bu baax ñi nga xam ne ñooñu la soxna Ami si la wax ma jiite leen di ñëw ci jumaa ji di buub si jumaa ji maa ngi leen di sant. ay tax la barakaatu yéen waa daayira mu xaddamatul xidma ñu ngi leen nuyu baax baax leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa gi sëñ Muntaxa Basiru di ko ñaanal mu yàgg fi suñu kanam waaye di nuyu suñu jëwriñ sëñ Afiya Buso ak sëñ Fall Touba ak mbooloo moo xam ne ñu ngi ci daayira Moukhaddamatoul ma di jël nuyoo bi ko teg si yo sëriñ sëñ Laat Bousso ñu ngi leen nuyu baax a baax leen ziyaare di leen soññ bu baax a baax ci liggéey bi leen xam ne liggéey bi rek moo fi ne leneen nekku fi lépp loo xam ne ni ñu ngi ciy dox liggéey bi amul dara lu ko gën a kawee lu liggéey bi kon ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax waaye di leen soññ ci barkeelu yi ñu doolu cee góorgóorlu bu baax a baax ci barkelo ñu ci soññi bu baax a baax ndax nekk na loo xam ne ni joxuñu ko benn nit ci barab bi fa lañ ko jëmale lu demee ko ay ventilo ay clim ay làmp ay morse ay bale yépp ci suñ barkeelu yi ci lay jóge kon ñu ngi ciy soññi bu baax a baax ñu dolli ci góor bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen waa daairatu muqaddamatul xidma wala ñun waa daairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo lëkkale mboolem soxna yi nga xam ne ñooy liggéey ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci jumaam ju tedd ji tey nag ñu ràññee ci daayiratu muxaddamatul xidma bi nga xam ne mooy ñëw ajjuma ak bi ñëw dibeer ak bi ñëw altine ak bi ñëw talaata ak bi ñëw àllarba mu toggaloo ci jëwriñ yii may waaja tudd soxna aji làmp jaañ soxna Ami Silla soxna Xadi Géey soxna Xadi Ñaan ak soxna yu ndaw yi ñu ràññee ci soxna Assu Gay soxna Ami Njaay ak soxna Awa Njaay ràññee it ci jëwriñ yi nga xam ne mooy sëriñ Moori Caam ànd ak soxna Aydi Jeey soxna Faati Fay ak soxna Bintu Ndongo ràññee it euh, sëriñ Sang Géey ci jëwriñ yi ak waa Mbàkke Baari soxna Ami juuf waa Touba Jolof soxna Ami Diaw ak sëriñ Fallou Bousso sëriñ Kabbu Ñing sëriñ Moustapha Ñang sëriñ Ilimane Sène sëriñ Ibrahima Ngom soxna Bousso Seck ak soxna Khady Mbeng ñooñu ñëpp nag àndandoo ci ginnaaw seen jëwriñ di sëriñ Cheikhouna Mbacké mii toog ak sëriñ Cheikh Abdou Bousso ak sëriñ Modou Mbacke sëriñ Mame Balla mbàkke ak ñi seqal liggéey bi ñëpp ñuy ànd ak ñoom di leen taxaw soxna yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëmit it ci jëf ju am solo ji nga xam ne ci jëf ju am solo ji nga xam ne jëfati ngeen ko tey jii mu jëm ci liggéeyu Seexul Xadim bii nga xam ne mën nañoo wax ne ba mu tàmbalee ñu fondement ko ba biñ ko jullee ba bisub tey mën nañoo wax ne soxna yi ñoo ci man wala boog kenn mënu leen ci loolu nag boo amee yàlla def yéen ñii ngeen bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo taxawee liggéey boobu ba agsi fii tey ñuy séentu bisub seexul xadim bu mag bii war koo dundal ci jumaa ji war fee nekkit diirub màggal gi di fi liggéey liggéey yooyu laaj ay taxawaay yu rëy yu am solo yu ñu war a taxawee ngeen jël seenub liggéey yéen bi ngeen di jëf ci daayira bi jooyale ko ci màggalu Tuubaa gi ngir mu bokk ci liy sottal liggéey boobu loolu nekk na lu am solo loo xam ne amel nañ leen ci cant gu rëy amel nañ leen ci gërëm lu rëy ngir tànn gi ngeen tànn ngën ji barab tànnit ngeen ji waxtu tànnit ngeen ji événement wala xew woo xam ne ci ngeen di jëf jëf yu am solo yii kon dafay mel ne tànneef la ci biir tànneef ci biir tànneef waaye ngeen yëg ne kon yéen ñi tànn loolu itam yéen ñi tànn tànneef yooyu it ay tànneef ngeen ci biir tànneef yi kon nag jërë ngeen jëf gis nañu liggéey bi am na solo lool ndax gis nañu ne daayira yi ma lim daayira soxna aji làmp jaañ jébbale ne lu toll ci ñetti million ak téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróomi téeméer nekk na jëf ju rëy ju am solo ju rafet jërëjëf yaag ñi nga àndal danañ ci delsi daayira soxna ami silla jébbale nañu lu toll ci juróom-ñaar fukki junni ak juróom benn soxna si jërëjëf waxoon naa la ne su fekkante ne liggéeyal yàlla lu ñuy jël retraite la kon na nga war ngaa jël retraite waaye ba léegi yaa ngi continuer di ànd ak ñun di ñu soññi di soññi njaboot gépp daayira Touba Jolof soxnaa mi jaw ak ñi mu àndal andi nañ lu toll ci fanweeri junni ak benn ak téeméer mu nekk jëf ju am solo soxna yi ndaw yi soxna Asugay jiite ko andi nañu téeméeri junni mu nekk jëf ju rëy itam ci ñoom ndax lu bari ci wolof ak li ñu miin mooy ndaw diineem sax daaw ko yitteel lool am po rek la daan def ci boppam kon yéen su gën a wanee ginnaaw pom yi wan ginnaaw àdduna jublu yàlla ñëw ci néegub yàlla bii di fi liggéey liggéey yu am solo yi ngeen fii liggéey wëlbatikuwaat di jël seen ñaq ji ko delloo ci biir jërë ngeen jëf nekk ngeen day ay misaal yu ëpp solo yoo xam ne ndaw ñëpp war nañoo roy ci yéen soxna waaye daayira Touba Firdawsi te sëriñ Maam Balla jiite ko ñoom andi nañ juróom fukki junni ak juróom ñetti téeméer jërë ñoom itam li ñu waxoon ci ñi leen jiitu rek la ñuy wax ci ñoom soxna Xadi Mbeng andi nañ juróom fukki junni ak juróom ñaar ak juróom benn téeméer jërëjëf ñoom it li ñu wax ñee leen jiitu rek lañ leen di wax soxna Mame Bousso sekk ak ñi mu àndal andi nañu téeméeri junni lii nag soo ko boolee day toll ci juróomi million ak téeméeri junni ak fanweer ak ñeent muy jëf ju rëy ju am solo joo xam ne tàbbi na ci biir liggéey bi nga xam ne moom lañuy waajale màggal gi xam ngeen ne nag daayira Muxaddamatul Xidma dafa am taxawaay yu rëy yu muy lig am ci màggalu Tuubaa yoo xam ne dafa laaj financement bu rëy ndax seen budget bi ren rek biñ ko nattee ci loo xam ne nag bokk ci ceeb bokk ci te xam ngeen ne dañoo yor waañ bu rëy boo xam ne day toggal mbooloo xëy na ñàkkul sax ci yéen ñu xam liggéey boobu ne mu demee waaye loolu rek toll na ci euh, fukki million ak juróom-benn ak ña ak fanweeri junni te lii may wax nag bokku ci ceeb bokku ci li mu doon rek mooy liggéey bii nga xam ne ba weer bi teraw ba léegi ñu ngi ci muy entretien bi ak dépense bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu marché moo ne am na yeneen i dépense yoo xam ne mi ngi ci biir yoo xam ne ñu ngi koy natt te noppeegut te bokkul ci lii yooye bokk na ca euh, activité culturelle yi nga xam ne waa commission culturelle bi dañ koy def te loolu lu mu néew néew dana jege million bokk na ca it waa communication jumtukaay yi nga xam ne dañ ko soxla ñoom it lu mu néew néew dana jege million te lii ñu wax lépp teewul am nañ ci biir poste de santé boo xam ne diirub màggal gi day faj te dañuy wut ay garab wut ay médecin yoo xam ne dañ fiy taxaw te yéen ñëpp xam ngeen seeraayu garab garab moom lu néew néew néew néew ku tele ay millions yu baree baree baree bare te million yooyu yëpp dañ koy fas yéenee fàggu ci ay garab fas ko fi yéenee andi ñuy faj diirub màggal gi su matee su desee ñu bàyyi ko fi mu continuer di liggéey ajjuma yi nga xam ne yëpp dañ koy liggéey kon soo nattee li nga xam ne daayira bi daf koy taxawee ci biir màggal gi diirub màggal gi day mel ne lu mu néew néew na mat fanweeri million jàpp ñeent fukki million loolu nag du liggéey bu ndaw waaye gis na ngeen yëg ne fanweeri millions yooyu wala ñeent fukki millions yooyu am ngeen ci taxawaay bu rëy ndax bis ni ki tey mën nañoo wax ne dugal ngeen ci lu toll ci juróomi million ak genn wàll juróomi million ak ju téeméeri junni ak ñaar fukk ak nangam te xëy na xëy na jeexagul ndax mën naa am am na ci yeneen cellules yi nga xam ne jotagu ñoo teew mën naa am danañ ñëw andi seen barkeelu te bu ñëwee day yokku ci lii ngeen def loolu nag day wane rek. taxawaay bi nga xam ne soxna yi am nañ ko ci yoonu murit wala sax ci lislaam ba lislaam sosoo ba léegi ndax lislaam bi mu sosoo jigéen moo ci njëkk a joxe bakkanam waaye yoonu murit bi itam bi mu sosoo ba fii may waxe ak yow wax naa ko sànq jigéen moo ci mas di man jigéen ñoo ci mas di man ñoo ci mas di jiitu ndax fu ñu wootee lu jëm ci liggéeyal yàlla wala ci la liggéeyal Serigne Touba ñoo fay jiitu ñoo fay ëpp ñoo fay dàq jëf loolu nag nekk na lu am solo. loo loo xam ne. waaw sëñ Touba rek a tax ñu koy def jërëjëf jërëjëf. borom màggal gi jërëjëf yàlla na sëñ Touba na leen yàlla fay. amiin amiin amiin amiin. ñun Dakar lañ dëkk. jërëjëf. waaye bu ñu sañoon dëkk Touba. jërëjëf. jërëjëf sëñ Touba ngeen Touba ba noppi. ah waaw waaw yéen a ngi Touba waaw waaw jëf jërëjëf taxawaay yooyu nga xam ne jigéen am na ko ci lislaam am ko ci yoonu murit taxawaay yooyu rek mooy seen taxawaay yi te moom ngeen di fedd li di ko wane guddi ak bëccëg suba ngoon ngeen xam nag ne liggéey bi day woy ci biir koor ci biir màggal bi dara du soppiku mën naa am yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ci biir dëkk bi xëy na seen jot mayu leen ngeen di ñëw ci biir màggal gi ci liggéey bi ndax da ngeen yor ay gan di ko toppatoo waaye ngeen xam am na ay mbooloo yoo xam ne mat nañu junni wala junneeg lu topp yoo xam ne fii la ñuy màggale daayira bi moo leen di yor moo leen jël en charge ci lépp seen fa ñuy nekk seen li ñuy lekk seen lépp waaye ngeen xam ne ñooñee ñoo leen di wuutu ci barab bi ci fan yi nga xam ne yéen a nga nekk ci toppatoo gani Sëriñ Tuubaa yi ci geneen wàll bu boobaay ngeen xam ne lépp luñ fi liggéey rek ñoo yéen a koy bokk waaye yéen lépp lu ngeen liggéey foofee du tee da ngeen am seen wàll ci liggéey bii nga xam ne ñoo ñooñu ñu ngi koy liggéey fii bés bu yàlla sakk fas nañu yéene ni mu ni ñu daan setale jumaa ji biiru màggal gi itam bés bu ne noona lañ koy setale bëccëg gi xëy na liggéey bi dana jafe ci mbale mi waaye yeneen liggéey yëpp danañ ko taxawee waaye guddi gi dañuy boole taxawee liggéey yi ñuy taxawee yëpp ak taxawaaye set set gi nga xam ne itam moom la ngeen daan taxawee fii ñu wuutu leen fa ngeen wuutu leen ci gan ñi Euh, ñooñu dañ fay nekk dañ ñi fi ñëw dañoo fekk dañ leen a fekk ci liggéey bi ñuy demit dañ leen di bàyyee ak liggéey bi te lay tax ñu toog man fee nekk bay doxal liggéey boobu it am ngeen ci taxawaay bu bar bu rëy te mooy lii ngeen jébbale tey ngeen xam ne ca loolee la jëm taxaw lay taxawu ñooñee ak budget bii ñoo xam ne wax nañ ko fi léegi nga xam ne dana tam dana mat fanweeri million jàpp jàpp ñeen fukki million seen jëf ji ca liggéey boobee la jëm kon nag da ngeen sant yàlla bu baax te xam ne bis bii Serigne Touba waxoon ne na ko ci ñëpp sant la yàlla képp koo xam ne mbégam sa mbég la na ko ci sant la yàlla yéen de seen jëf dugg na ci bis boobu ca fam ko gën a bëggee gën ko faataamoo te mooy barabam bu sell bii kon nag na seen xel dal bu baax seen yaakaar dolli ko te ngeen xam ne euh, ni ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan waxee sëriñ Touba laa doon liggéeyal ba samay moroom raw raw ma nopp mësu koo dégg bët mësu koo gis te nopp du ko dégg bët du ko gis kon nag bég leen te xam ne raw ngeen seenu mas képp ku ngeen bokkalul liggéey bii rek raw ngeen ko te jëfal sëñ Touba nag fépp la baaxe waaye nag fii la gënee ci barabam bii ci waxtu wii ci néegu yàlla bi néegu yàllaam bii da ngeen a tànn màggalu tubaa tànn jumaay tubaa tànn barabu Serigne Touba ngeen di taalibe Serigne Touba jëf ci jëf jooju faw sëriñ tubaa daf koy nangu te jëf ci Serigne nangu nag yëmul ak jenn jëf ci àdduna danaa koy faral di wax ne mag mu ngeen gis fii muy kilifa ci yoon bi ak lu mu rëy rëy rëy rëy rek xëy mu xëyaloon Serigne Touba daje ngërëmam mbaa ngont lu mu daje ngontaloon Serigne Touba daje ngërëmam moo ko may la mu am ku xamoon nag bis ba ngay daj xëy. dajeeg ngërëm loolee mbaa ngont ma ngay ngont dajeeg ngërëm loolee da nga koy dàkk ginnaaw xamoo nag kañ la walla fan la walla fu muy amee danga koy dàkk ci fépp di ko dàkk ci lépp di ko dàkk ci waxtu yépp kon nag al jërë ngeen jëf yéen de yéen a ngi koy dàkk ci lépp yéen a ngi koy dàkk ci fépp ndax koor gi kenn mënu leen ci woon gàmmu gi kenn mënu leen ci màggal gi kenn mënu leen ci te booloo lépp jàllee ay bis ju nekk li ko tàmbalee ajjuma ba àllarba bés bu yàlla sàkk ñan nit yéen ñi ngi ci jumaa ji di setal néeg bi néegu yàlla bi te foofu euh, doon na lu rëy loo xam ne dara ëpp ko ci kanamu sunu borom jenn tiyaaba ëpp ko ci kanamu sunu borom kon tiyaaba nag mën naa bari lool waaye dana ëppantee fañ koy sàkkoo ndax boo génn julli goo julli ci jumaay Makka dana wecci téeméeri junni yow julli feneen yeneen la waral loolu nag mooy barab ba nga ko defee rek kon nag barab bii nga xam ne sunu boroom moo ko tànn mu bokk ca barab ya tànn jagleel ko ku mu tànn mu bokk ca góor yàlla ya tànn te ñu jàpp ne kenn jiituwu ko ca muy Seexul Xadiim mu daj li mu daj ngir gëstu barab bii ba jot ci jàpp nañ ne barab boobee lépp lu ca waay def rek def na ko fa mu gënee te waxtu wu fay jotee da nga xam ne la nga doon jëf fa nga ko doon jëf rek la gënee àdduna nag du kërug pay àdduna du kërug pay xéewal yu ngeen fi gis lu mu rëy rëy rëy ndab lu fees di tuur rek la waaye adduna taxunoo jóg àdduna taxu leen a jóg àdduna taxut a jóg sëñ Tuubaa waaye teewul nag lim nu woon ci àdduna rek suñ dee gor war nañoo takku liggéeyal ko guddi bëccëg suba ngoon bañ a geesu dara bañ a xool dara ndax la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon kat la ñu daan defal gor ñi njëkk ña bañ daan wax ne yàlla naa fekke sa bis ba man laa delloo njëkk lii nga ma ji fukkeel ba fukkeelub loolee fukkeelub lii ñu Sëriñ Tuubaa defal ñooñee daawuñ leen ko ca defal kon nag ñun buñ dee gor suñ lépp dañ ko war a delloo Sëriñ Tuubaa loolu nag yéen ñii delloo ngeen lépp seen lépp Serigne Touba kon nag na ñoo ngi leen di sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di leen sant bu baax ci turu njabootu Serigne Touba gépp waaye di leen sant ci turu njiitul daayirat Muxaddamatul Xidma Serigne Afia Serigne Abdoul Ahad ñoom ñii toog Serigne Fallou Mbacke ak kilifa yi nga xam ne ñoom ngeen àndal liggéey bi di Serigne Cheikhouna Serigne Modou Serigne Mame Balla Serigne Fallou Bousso Serigne Modou Mbacke ak Serigne Mori Thiam ak kilifa yi ngeen ko àndal yëpp. ñoo ñëpp seere nañ seen gërëm te bu ñu seeree seen gërëm rek sëriñ Touba seere na seen gërëm kon nag jërëgeen jëf yàlla nañu fi bokk teewaat nëgëni déwén te bu nëgëni déwénee kenn ci ñun bañ a manqué te bu ñuy ñëw ñu àndaale ak wér àndaale itam ak yokkute gu mat sëkk yot loolu sax dañ koy ñaan rek di ko tegginal suñu diggante ak suñu borom waaye xam nañ ne ku jëf ci sëriñ Touba yokku rek ngay mën a def kon nag yokkute googu yàlla na ràññi koo ràññi te ñu jariñoo ko te mu law ba ci sunuy njaboot nun ñëpp ñoo ngi leen di sédduwaat nag na ngeen di déwén di jàpp ne bu na ngeen di déwénee su ngeen di ñëw li lii di rey li jëf ji di rëy rëy rëy rëy joj déwén ja dana tax ñu fàtte jooj ren ji ndax mbirum Sëriñ Tuubaa tànki kanam la am amul tànk ginnaaw te waxoon na ne sama tey ju nekk day gàcceel sama démb kon jëf ji rëy na lool ren ndax mësu neetal rek la ñuy wax waaye nag man day li ma fekk ci ay màggal bareegul waaye màggalug daawa dàq goog ren mësuma koo fekki ni màggalug ren gi ni mel ak màggal mësunee fekk mel rek la mas di dégg kon jàpp naa ne lii ngeen fi indi ren bu déwénee day yokk gën a bari lool ndax seen kattan dana yokk seen man-man yokk seen am-am yokk ba ngeen mën a yokk seeni taxawaay ci liggéeyub Serigne Touba bii loolu laa gëm te loolu laa yaakaar ne moom la Serigne Touba di def te ñun ñi ñëpp loolu lañ gëm jërë jëf jërë ngeen jëf jër ngeen jëf yàlla na leen sëriñ Tuubaa nangul te dolli seeni xéewal te ñu fekkee waat ko ni nga di déwén kenn bañ a manqué wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. équipe sëriñ Tuubaa bi mu tukki woon ci géej gi ba di ko ànd itam ak comité d'organisation bu màggal gi muy nekk am tànn ci nekk benn bis boo xam ne bis mu mag lay doon bis boobu nag ajjuma ji dañ ko daan def guddi te génn guddi bi da daan jafe ci soxna yi moo tax ñu daan leen ko jéggal daawuñu leen ko jégal waaye ren nag dañ koo def ak takkusaan ngir bëgg yéen ñëpp ngeen ma ngeen mën a mobiliser wu ñëw fekkee si ko taxawu ko taxawaay bo bu mel ne bii ngeen di taxawoo liggéeyu Serigne Touba yëpp bis boobu nag ajjuma jii ñu jëm lay doon ci takkusaan ci mbaar mii mbaarum isbi tarxe mii ci bunt ko Cheikh Mouhamadul Fadil ñu ngi sàkku ci yéen ñëpp ku ko ci man ngeen teel a waaj te ñëw te bu ngeen di ñëw yéen ñëpp ni ngeen di ñëwee ci liggéey bi rek col gi ngeen di sol di ko ñëwee ci liggéey bi col googu noonu noonu ngeen di solee lu wert di ko ñëwee ci liggéey bi ñu ngi sàkku ci yéen ñëpp bu ngeen di ñëw ku ko am ku ko man mu sol lu weex tàll ñu ànd ñëw teewee jataay bi mbubb weex kol gu wert loolu la jëwëri ñi sàkku mu bisu ajjuma xam ngeen ne bisu ajjuma dañ cee taamu ko sol sol lu weex rawatina booy dem ci jumaa kon nag bis boobu ñu ngi sàkku yéen ñëpp ku ko man mu teewe ko bu ñuy not bu ñuy jullee si bi tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi dugg ci baas bi waxtaan ngir balaa timis nit ñi mën a yeewu ko ndax waajtaayu màggal lañu nekk te jamono ji day xat te nawet la itam taw yi mën naa bari moo tax ñuy sàkku ñëpp teel a ñëw ngir ñu mën a teel a tàmbali waxtaan wi ñu ngi santaat bu baax nag di gërëm bu baax di ñaan sunu borom dolli xéewal yi bu baax ci barke Cheikh Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bi jaahi bi jaahi zil bi jaahi zil jaahil azim yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana salli ala xayril wara muhammadi wa alihi maa sahaabil hubbadi واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامة وبالرضوان واجهبهم إلى الهدى والخير واصرفهم من عن الردى والضير واغفر لهم كل لغ وذنب وهب لهم معا صلاح القلب wa kun muaynakum ala umuuri diini wa dunya madad duhuuri wala tuwaaqishum bima qad ajramu fi sirri wal jahri fa anta al akramu waftax alayhim fi lulumi fatxa yuzilu anhum danasan wa qubxa wa hëb lahum sacaadatan taduumu yaa barru yaa mujiibu yaa kariimu wasrif quluubahum ila ltaaati bilcilmi walcamali wal awqaati bi jaahi afdalil wara muhammadi wa xaqi sahri ramadan al amjadi wa xaqi aalihi wa sahbihi jamia wa xaqi kulli di ibadatin mutia wa salliyan alayhi summa sallima wa aalihi wa sahbihi wa karima wa karama wa karima ma daamatil xidmatu sullaman ila saadatin wa linajaatin wa ula subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit di mbokki taalibe yi waa Kër Seexul Xadim maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq di leen baal di leen ñaan jàmm di ko sàkku ci yeen di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi saahidul fadila sunu xalifa général kullu murit Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi te dëgëral ko tam àggale yéenam ci liggéey sëñ Tuubaa ñu moom di nuyu nag mboolem koo ko ne nekk ci jumaa ji la ci Muxaddamatul Xidma bii nga xam ne yàllaa nu ko tànnal boole nu ci noo ngi nuyu ka ko jiite ba ci kawite mujj di nuyu ñoo ñi fi njëkk ba ñu fi mujj a ñëw ci liggéey bi ñëpp am yërëm am ngërëm ndax liggéey bi demee na noo xam ne yàlla mooy tànn tànn la boole la ci waaye du ko bëgg a bokk bokku sax waaye mboolem ñi yàlla tànn boole leen ci nag dañ ci am cofeel am ci cawarte am ci mbégte di fa yéene ànd ak yéen ci liggéey bi tey ak ëllëg duñ dellu ginnaaw mukk duñ arrière ci liggéey bi ndax sunu jëmm ju tedd ji kenn mënu ko fay kenn la ci noonu rek lu nu am mooma nun mel mooma fu ndem mooma lu nu bëgg mooma moom lan yaakaar tey yaakaar ko ëllëg jox ko sunu bopp te duñ masa dellu ginnaaw mukk ci këru àdduna doonoon ko sunu ruu jox ko sunu bakkan jox ko sunu deret jox ko sunu alal jox ko sunu njaboot jox ko sunu àdduna jox ko sunu alaaxira jox ko sunu tey jox ko sunu nag te xam na leen lépp yoral nanu ko kon noo ngi koy sant di ko gërëm di koy ñaanal yàlla na yàlla yegg ci moom yërmande ak njëggal ak waayu mbokkom yu baax yeeg njabootam gu baax gi waaye di ci jiite sama sang ba Seex Sooy bu Mbàkke sama sang bu baax ba di ko ñaanal yàlla yeesal ci moom jéggal te defal ko taw feex fa mu nekk moom ay njabootam gépp ak képp ko ko yaakaar waaye yéen ñii yoon Moukhaddamatoul Khidma bi maa ngi leen di ñaanal di sunu góor ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ñu sunuy sëriñ di sant yàlla bu baax ci ànd gi nu yàlla booleeg yéen waaye nag di soññ nag sunu bopp te fas yéene nag di ñaanit ab daje nu waxtaan nun ci suñu biir nun njiit yi waxtaan ci suñu biir xoolaat sunu liggéey ndax liggéey bii du yomb boo demee màkkatal mu karama lii am na fa nga dem a Munawara lii am na fa waaye ay ay ay doomu aadama duñ ko def ay machine na koy def muy ay oto ku dem Màkka xam nga ne oto yaay raxas barab yi kon nun ñi nooy oto yi Sëñ Tuubaa yi noo nooy avion yi nooy saxaar gi nooy sareet yi noo ko fas yéene di liggéey di ko pomp di ko defar ba mu yees di ko fas yéene yeesal te fa yéene taalal suñu loxo di ko ñaanal nun ñi ci nekk nag kenn ku ne ba nga ci nekkee ba nëga ni dangaa yokk rek waaye wàññi koo delluwoo ginnaaw yaa nga ca ba nëga ni waaye delluwuñ ginnaaw moo lam ñi ma àndal nag ci turu sëñ waa ka sëñ Soyebu ñuy xidmatul xadim di ay jigéeni saalihaat maa ngi leen di nuyu te leen siyaare te leen ñaanal yàlla mu fay leen njiitu soxna naar ak soxna Maga Sall mi nga xam mooy denc xaalis bi soxna naar mi président bi ñun sunu groupe dañ ko wutal lépp trésorier secrétaire organisé nañ ko ba mu tegu caw yoon kàddu sax wut nañ ko ko war a wax ndax lii dafa aajo organisé aajo nag liggéey du liggéey bu ndaw liggéey bu rëy a rëy la fépp fu liggéey bi sëñ Tuubaa rek liggéey bi na koo kowe ndax ku ne xam na ne jumaa ji bokkut ak dañ doon tasaare ca gamong de walaay bokkut ak ñeenti xam ñeenti bor na yooyee kon nag ku a xam na ne fii ku fi ñëw war nga fi ñëw ku fi ñëw war nga fee ñëw ndax li ñuy am ak lépp fii lañ koo liggéeyale kon nag nan ak man ñu góorgóorlu fas jom te fas yéene daal takk seenu laxasaay mu dang lépp lu ngeen daan def ngeen yokk ko bu leen ko leen ci dellu ginnaaw bu leen ci arrière kin ko defal na ko de ndax lu nu am mooma lal yu nooy yi kër yu rafet yi ñam yu neex yi oto yu rafet yi ku gën sato ngay taal dugg ca dem lépp borom tukki bu rëy bii si mag ji ci màggal gu maggee ko waral kon nag ay camurit ay camurit ay camurit ay camurit ku ñaan ñàkk boo jëndam jërëjëf Seexul Xadim jërëjëf Sëriñ Tuubaa jaarama maam jaara borom poroxaan jaarama maam jaarama feeru naawel wallaay naxu dayut wallaay im noo ngi di tam bopp ba coroxaan bu sa baali ma sàmbaak seex jërëjëf jërëjëf